mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex lay doon saa su jot ñuy feggoog yéen fépp fu waay mën a nekk ci biir réew meek ci euh, biti réew ci seen émission bi le di weer weerle weer weerle li ko tax a jóg mooy gindi askan wi ci lépp loo xamante ne rek jafe-jafe la jëm si seen wàllu piir bu yaram ngir ñu mën koo feggu wala su leen dalee ba noppi ñu mën koo faj ut cib euh, saafara saa su nekk nag ma ci euh, feggoo ak ki nga xamante ne moom moo di borom tawfeex ko am wér yaram mooy am tawfeex kon duñu def lu dul ziar ko tatagal ko dalal ko ci émission bi lee di euh, weer weerle laataa ñuy sóobu ci ponk bi nga xamante ne tey yaakaar naa ne ne dina yitteel euh, ñu bëri ci askan wi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi fare fi nga xamante ne moom moo di euh, biti réew sëñ Medoune Seye borom taw feex ziar naa la waaw soxna Awa ñu ngi lay delloo nuyoo di ñuy ñëpp ak képp ko xam rek soppe nga tey bàyyi xel émission wër-wër jërëjëf soxna Awa jërëjëf euh, sëñ Medoune Seye euh, borom euh, tawfeex ñuy fàttali ne mun ngeen jokkoo ko moom ci lépp loo xamante ne rek yitteel na leen am ñu laaj yoo leen ko mën a jagleel ci bu mu jokkoo yi nga xamante ne mi ngi affiché wu au bas de l'écran tey ponk bi nga xamante ne na mën nañ ko waxtaane bokk na ci impuissance sexuelle lañ koy dippee ci wàllub góor ñi ci nasaraan waaye ci wolof ñu bëri dañ koy wormaal di woddu kaddu yi ni mel tey duma xam ban donc la señ medoon di dugg sé waye man mën na né gor gu télé gor gu ngembo galas gor gu wacc lal yoy yëpp dañ koy faxal di dégg ngir rafetal euh, waxin di waye señ medoon euh, tay ji naka lañu mëna dippé a impuissance euh, sexuelle masculine waaw ci tambali sax manam dugg nga ci thème bo xamanteni bu am solo la ci doom adam bi mm-hmm. ndax bo né impuissance sexuelle wax nga lo xamni dafa teunk dundu doomu aadama bi ci ku góor ki comme que ci ku jigéen ki waaye ba tey nekk na pàcc boo xam ne pàcc bu jafee waxtaan li muy am solo yëpp jafe na waxtaane lool fii ci réew mi li tax ma wax loolu pàcc bu am solo la mooy boo nee impuissance sexuelle rek wax nga rapport sexuel te ku wax rapport sexuel wax nga sex ku wax sexe nag wax rapport sexuel wax nga doom mm-hmm. ndax doomaa damay faral di wax ni eh, ni nga xamante ni noonu la fi dikkee xëyu rek na cëpp egsi maanaam doomu aadama jógul ci asamaan si egsi doomu aadama euh, du lu ñuy luxus dafa am fu muy jaar pour nekk mm-hmm. maanaam du lu ñuy ñaan du lu ñuy wax du lu ñuy wér di kurus indiwu fi doomu aadama leneen leneen indiwu fi doomu aadama doomu aadama dafa am ci diggante góor ak jigéen yuy xew pour mu mën a ne doom ji nekk comme rek ni ma koy méngale ni baykat bi demee ci toolam ji fa gerteem wala dugubam wala lu mu xam gannaaw ba mu ko bayee loolu meññ noonu la ñuy jiwee doomu aadama fii nag boroom tool ba di baykat ba moom daa dem ci àll ba ñagal ko fa tool ne ko yaa moom tool bi mhm. ci société nit ñi fii tamit fii ku góor ki mooy dem ak ku jigéen ñu takkal leen sëy maanaam mariage dañ koy takk ni boroom tool bi amee toolam ñàkk ko kii tam am ñu takk sëy bi ni góor gi ak jigéen gi ñoom mën nañ di nekk di ànd ni baykat bi di bayee tool bi ruuj ko ngir mën a ji fii tamit ci wàllu ku góor kee jigéen ki góor ki dafay bay ci ku jigéen ki pour mën a ji bay bi mu ngi méngoog ci sëy li ñuy wax rapport sexuel rapport sexuel boobu mu ngi méngoog baykat bi jamono ju muy ruuj gi yu mel noonu waaye nag bu góor gi ndoxam génne muy éjaculation boobu mooy méngoog ba mu jëlee jiw bi samp ko ci suuf si kon ku góor tam bu dafay éjaculation moom it mooy jër na jiwam muy wallax njaani ji ko ci suufu ku jigéen ci moo waral sax baatu jigéen ji geen parce que góor li mu am geen la mhm. ci lay jiwee mhm. kon loolu mooy indi après ñu ne doom mën naa am kon mu nekk kon lu am solo ci dundu doomu aadama yi nga xam ne kon fa lépp tàmbale mhm. impuissance sexuelle nag bu fekkoonte ni maanaam mooy góor ñëpp loolu da na daal day mel ni ko ñu ne tool yi baykat yëpp bayuñu ñëpp kenn mëntu cee bay kon benn pepp da am kon xiif dana am fii tamit bu góor ñëpp noppee bay ñëpp am impuissance rek mooy ni kon doom moom dootul judduti kon lu am solo la kon fa la doom ak lépp di tàmbalee. Mhm. waaye nag dafa jafe waxtaane comme ni nga ko waxee sànq. Mhm. ndax dañ nekk ci dëkk boo xamante ni nit ñi euh, dañu am benn complexe boo xam ne daf leen a dal fi ñu doon dégg nga ci waxtaan bi wax naa sexe. Mhm. wax naa rapport sexuel. wax naa impuissance sexuelle. mais gis na nit ñi seetaan yëpp amul kenn koo xam ni tikke na la wala mucca na la wala nga am ci kers waaye bu su ma ko waxee ci olof rek. ngir ñaan na waaye na na tegginal wax ji waay waaye na ko wodd waay waaye na ko rafetal waay mhm. maanaam mel ni ñun kàllaam bi ñu am di olof di ko làkk mhm. wala muy joolaa wala muy séeréer wala muy tukulóor ñun dañ ñoo gëm loolu ñeen xeeb leen seen bopp ba leen seen waxin sax baaxut ba bu ko tubaab bi waxee ñu nangul ko ko bu ko arab bi waxee nangu ko waaye bu ko olof waxee wala jool waxee ca nam ko làkkee ñun dafa ñàkk teggin kon day mhm. mel ni sunu maam tubaab yi seen maam seen maam moom war doon na ay kàddoom ba yiw na mhm. mais ñun suñuy maam kon daal ñoom yiwuñu ba seen kàddu lañ ko war a lëmasaat tegginal ko dafa jëm ci yu bëri ah même du ci wàllu wàllu rapport sexuel rek xoolal fii da ngay gis soo xam ni nit ku fekkee dafa se di sol lu rafet correct yiw lu ñu lay wax soxna awa dafa tubaabe mhm. parce que il est correct waaw kon nag ki def safaan ba ki sulusiwul te te ñàkk teggi nag ñàkke sa kon kooku moo olofe mhm. kooku moo nit ku ñuule kooku moo séeréere kooku moo jowaale loolu da lay wan ni kon xeeb suñu bopp ba nit sax bu amee jikko yu bon soxor di jëf jëf ju bon di lor nit ñi di waxal nit ñi lu bon di yàq nit ñi lu ñu lay wax mhm. diw xol bi dafa ñuul pour wax na ni kon xol bi dafa bon kon ñuul mooy suñu fee kon lu baaxut mhm. loolu dañ dem ba gëmloo ñu ko ba bu nit deewee sa ñu la solo lu ñuul ndax da ñuul daal moom mooy crime mhm. euh, weex bu amee sëy bu ñuy takk lu neex la na sol lu weex wala sax dem ba ci kàddu yi nga gis nit kuy dem toilette war a sawi luñ lay wax diw day tuuri ndox mais tuddul tuur ndox saw la tuddu lu tax ñu ne tuur ndax parce que ñu ne kon maam mi bu nee saw kon dafa tegginiwul te pourtant su ma ne il urine du déranger kenn mhm. tuur ndox baaxut yàq na ndox dañ ciy sang ñu naan ci wala ñu jàpp ci wala ñu ne tuur dugub tuur dugub baaxul dugub dañ koy wal mooñ ko tay ko cere ko nit ñi lekk ko mais seen concept te bu may xëy ne il fait caca dérangé wul kenn mais boo ko waxee ci olof ñu ne nañ ko wodd mm-hmm. dem na sax ba ci yeneen nga gis nit koo xam ni dafa dee boo nee diw dafa dee ñu ne waay xool kii li muy wax du wodd kàddoom bi mm-hmm. te tubaab bu ne diw il est mort en mort signifie dee du déranger kenn. dañaa mhm. la diw dafa làqu. Mhm. diw dafay nelaw mais ku làqu dañ koy làqarti mhm. ku nelaw ñu yee ko mu jóg. nelawuñu làquñ dañu dee. dee la tudd Alxuraan dee la wax. bu ko français bi ne il est déranger kenn olof na dee ñu ne lu tax dafa dee fii ku dund di nga dee. loolu la yàlla wax ci Alxuraan kon complexe boobu ñun. daluñu mhm. kon nag ci biir waxtaan bi ñun lépp loo xam ni laaj na ko ca lañ ko waxee donte nag yenn saa yi nga dégg yenn baat yoo xam ni dañ ko ne nii la ko am si waxee fekk sa ñun duñu mhm. ko indi wax nañ ko olof di waxee teg ko nag ci condition dinañ ko wax ci français wax ko ci arab wax ko ci wolof ku français beeg arabe bi dérangé wu bu olof bi dérangé nga jàpp ni loolu lu ñàkk teggin la kon jàpp ni kon sunu maam ñu ñàkkoon teggin lañ tubaab bi ñoo leen gënoon am teggin xam nga man nag samay maam maay seen sët kon ma ñàkk teggin nuru samay maam du wàññi dara noon laa koy waxee uh-huh. euh, ku mu metti nga xam ni nag lu lu la waroon a neex metti na la waaye da ngaa am rek complexe visa bi tubaab bi nga xam daf ñu gëmloo nit ñun tekkuñ dara te tubaab bi nag gënuñu ëpp ñu xel tubaab bi ñoo leen gën a yow tubaab bi yàggul seen maam daawuñu sol ay yére jamono suñu maam ñu ngi sol yére c'est que dañoo jëriñoo seen xel ñun ñu lànk bañ ne suñu xel duñ ko jëriñoo. Hmm. ba tax na kon ñun ni lañu nekk man nag du ma nangu lool te ak ma complexe visa bi des tubaab ak ku mën a doon. Hmm. jàpp naa nit ku ñuul ak olof wala séeréer wala tukulóor moo gën ku mu mën a doon sama gëm-gëm la. te loolu laa jàpp ni moo nekk. moo nekk kon euh, tey jii ci fànn boobu impuissance naka lañ ko mën a dippee. waaw xam nga léegi impuissance bu doon ko def littéralement ci tubaab. in hmm. im puissance doole. manam bu ko def littéralement da nga manque de puissance. parce que ni ñi dañ jël sa affaire u dem ba tégal kon affaire doolé doole te sëy du doolé sëy mécanisme le processus bi dox rek la bu naturel. Mhm. comme nit di naanee ndox nit di lekkee nit yoy mais bu mo doon impuissance mooy dama wax ne man ci olaf moy télé mhm. manam ko xamni dafa teuwe accomplir sëy bi manam góor pour mu sëy il faut que mu am. Sakaram djok il faut que mu deuguer mhm. tek ci il faut kon mu meuna nek nekk ak soxna si sëy ak mom ci dir mhm. donc bu ko doon wax ci tuab dama naan c'est un individu l'homme qui est am maanaam incapacité d'avoir et de maintenir une érection durant wala pendant un rapport manam kep ko xam ne tële nga mën am sàkkare mu djok te deuguer te yag nga mën jot ak soxna ba mom mu jot banexam bu soxna jotul banexam ta nga wacc rek yow am nga impuissance moo xam nag dafa nekk faiblesse ki nga xam dafa néew mhm. moo xam dafa nekk koo xam daf ko ñàkk totalement absence moo xam dafa am koo xam dafa éjaculation précoce ñu ne dafa gaaw ndox mi dafa gaaw a génn kooku it dafa tële ñoo ndax ñoom ñëpp tële nañ accomplir processus rapport sexuel bi du début à la fin rapport sexuel nag ci olof moom la ñuy wax baane waaw kon nag euh, képp koo xam ne am nga jafe-jafe nag nekk ak sa soxna sa sàkkara mën a jóg nga téye ko mu dëgër nga joteeg moom ba mu noppi boo ko mënul rek foo pan ci diggante bi rek da nga am impuissance mu na nekk faiblesse mu nekk éjaculation précoce mu na nekk leneen ak leneen. Mhm, yoy yëpp dañ koy bolé mu nekk impuissance. mu nekk impuissance bi day nekk loi bi rek manam impuissance dalay wone rek tële nga. Mhm. tële nga def acte bi ba mu ba mu jaar yoon. Mhm. ki nga xam ne dafa amul dara ci katan jógut mënut a sëy ki nga xam dafa jog waye dëgërut mënut a sëy ki nga xam ne dafay doyle nopi mënut a sëy ñoom ñëpp ku ne dafa am incapacité mu am érection bi ba paré téye ko. am ko ak téye ko la. déroulé ko ñetti phase la bu ci benn phase amee jafe-jafe rek kooku dafa am impuissance kii ne na faiblesse kii ne naang moo ñu ne kii dafa néew doole olof ki ne leen dafa ñàkk kàttan ki ne leen dafa gaaw ak àgg na ay xeet ak li ko waral mhm. euh, tey euh, ci ponk yooyu ci li ko waral yaa ngi naan euh, impuissance bokk na ci faiblesse bi bokk na ci gaaw a àgg bi itam mhm. kon mun nañ balaa ñuy àgg ci lan moo koy waral ban temps ban àpp lañu mun a jàpp ne li mom moy érection bu normal pour nit ki mën baña jappé bopam né dafa am ci ñett yi ñu ñu japp né mo am wa légui nak d'abord durée bi ñaar la bi ci jitu dañ né képp ko xamni goor nga yaangi sékk sa soxna te yow sa soxna laata mi jot bané xam fekk paré nga yow am nga éjaculation précoce mhm. ak temps bo mën jël bu dé da nga def 20 minutes te sa jabar jotul yëg bànneexam wàcc nga éjaculation précoce nga def mais bu dee da ngaa def 10 minutes te sa jabar moom it am na ci bànneex moom ba doyal defoo éjaculation précoce kon fa dañuy wax ni kon dafa calqué wu en fonction góor gi ak jigéen gi couple bi na ku ci nekk jot boppam bu ci kenn jotul boppam rek rawatina ku jigéen gi éjaculation précoce am na. Mhm. mais nag temps standard temps standard dañuy faral di wax ni góor minimum 30 minutes la war a def rapport pour jigéen gi mën a jot neex maanaam soo jëlee 90 jigéen sur 100 cabinet si 30 000 de rapport dinañ tàmbali ko seen bànneex parce que góor mooy njëkk a jot am xemmenteef bi waye jigen gi moo ko mu njëkk maanaam day jóge ci kaw di wacc jigen day jóge ci suuf di yéeg ñu tassé ci walu désir bi ak plaisir manam xemmenteef bi ak bànneex bi non la yaram bi di actionné ci ku góor ki comme ci ku jigen ki kon da nga wara fexé rek solo bi moy yow mi nekk ci soxna moy nga fexé ba mhm. soxna ci jot bopam bu jotul bopam rek am nga jafé jafé légui nak mo xam dafa dëgërul moo xam dafa am na jafe-jafe bu tax daal ba érection bi baaxut wala mënoo ko téye rek kooku am na jafe-jafe à ak li muy sëy muy ku jigéen ki mhm. euh, tey euh, ci góor ñi euh, lan moo koy faral taal ci ñoom parce que gis nañu ne si ban tranche d'âge itam la gën a bëree ci jamono ji yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi gis ay patients yoo xamante ne ñu ngi dund ak li ni mel. xam nga léegi facteurs yi dafa bari Mhm. moo tax dafay baax pour nga xam damay faral wax ni pour combattre un mal il faut le connaître mhm. mbir boo xamul na muy système bi ak mécanisme bi bu yàqoo do mon xam lu ko yàq te sey li ci dugg dafa bari Sey. xel mi ci la bokk xëtëri ci la bokk mhm. xol bi ci la bokk deret bi ci la bokk sàkkara ku góor gi ci la bokk waaw yooyu yëpp bu ci benn amee jafe-jafe day indi jeexatal ci sey bi motax yoyep yooyu wara dañu war a parce que mbir mi mécanisme bu dox processus la bo xamni da fay enclencher wu di enclencher wu ba processus jeex bu fekke nak ci yooyu mo xam xol bi mo ko am problème xol mën na am problème sey ko am problème mu xeuter mën na am problème sey ko am problème mu deret na am problème sey ko am problème sidit moy deret yi fu muy jaar ci yi artère yoy mën nga am problème sey donc nit ki ko am problème hormonal ci dopamine bi sérotonine bi ak yu mel non mën nga am problème sey

parce que beaucoup nous cause bi indi fièvre feebar da dafay bax nit ki en fonction âge am en fonction constitution manam ay antécédents lan moko dal ci fièvre diabétique hypertension dafa am garab yu mi jël dafa am nang détail yep ngay jël nga xol ko mën xam ne kon ki li moo tax am impuissance nga réglé ko. Mhm. léegi nag nit ku dem ba nek mak forcément sa kattan na menon menoon ko met parce que avec l'âge ni nga demone mën di yekkati 100 kilos. dem mu mujj gi mënoo yëkkati ni kilos doole ci foofu tam noonu lay wàññeekoo. Mhm. loolu moom doole wala dara ak néew doole mais nanga am doole bu tolloog sa at waaye boo amee 60 ans bëgg nag di sëy xale bu am 18 ans di di jël lu da ngay roy sa bopp parce que 60 ans ak 20 ans bokkuñu. Mhm. mais na am doole doole kat méngoog sa kattan yow bu méngoog sa âge bu méngoog yow sa sa sa say at moo tax mbir mi dañ koy relativiser en fonction nit ki âge bi. ak moom yan moo daje ci moom ci yu ko dal ak dundinam ngay mën a xam ni kon nangal moo tax amul benn cause principale boo xam ne nga nangam la hmm. ay succession de causes yu ko ma indi la yoo xam ne bokkul par rapport à un autre hmm. euh, kon yaa ngi wax euh, facteur favorisant yi maanaam li nga xamante ne yëpp mun na koo sooke euh, ci déggin du benn mbir la ñu mën a joxoñ baaxaam ne moom moo ko sabab ay mbir yu bëri yu daje moom mooy sabab li ñu mel et ça dépend itam ci nit ki yaa ngi wax xale ak mag mhm. mais tey jii borom tawféex laataa ñuy àgg torop ci mbiru aphrodisiaque yi am na benn ponk boo xamante ne ñu ngi koy waxtaanee am na séminaire bu ma participé temps yële dañu gis ne ndaw ñi xale yu góor yi waxambaane yi surtout ñu ci ëpp ci ñoom jamono ji ñoom ñuy euh, dund tële googu waaw xam nga léegi ba tey ci naane bi waxambaane bi nga xam ne wérut am na problème mu deret am na problème mu xëtër am na problème nangam mën na ko ni lool waxamaane bi nga xam ne day masturbé wu parce que masturbation en tant que tel acte bi moom du mooy poser impuissance bi mais nit ki buy masturbé surtout comme nga masturbé tey toogaat une semaine de masturbé kooku c'est pas grave dèjà ci côté santé ci côté charia baaxul dafa aram mais ci côté santé dina dimbali ko góor kooku ay benn yoon ci weer bi et cetera mais koo xam ne day masturbé deux fois par jour trois fois par jour maanaam masturbation moom c'est fréquent kooku dafa am problème bu mu ci bopp maanaam saa yu masturbé ndox moom muy génn di mànniwu bi dafa am nu ñuy doxee maanaam nit dafa am lu ñuy wax zone yoo xam ne mooy zone de plaisir et de désir ci thalamus beeg yooyu waaye am ay ndox yoo xam ne moo koy indi lu mel ni dopamine bi lu mel ni sérotonine sérotonine bi lu mel ni noradrénaline bi ak adrénaline yooyu ay facteurs la yoo xam ne ñoom ñooy doxal loolu nit ki nag buy génn mànn yu lu bari di masuru di mànn yu di génn lu bari dafay perte li ñuy wax dopamine bu bari perte testostérone bu bari hormone bobu bu ko lolou moko moo nak yóbbee nag à la longue mu am impuissance bo xam li ko indi moy testostérone bu bari bu mu ñak ci sperme yum doon génné moko indi li nga xam moy mooy bi mais masturbation nit ku koy def de temps damay ñaan ko passé daf lay yom déedéet ku koy def de temps à autre nga xam ne abusé woo ci boobaa sax c'est bénéfique ci côté santé mais ci côté charam dafa aram ki masturbé wu ak ki sey ak jigéen ñoo bokk bàkkaar man charia taxuma fi jóg ak kii damay wax ci wàllu terme médical la yor ci côté santé ki masturbé wu de temps à mën na ko indil moom soulagement ci côté santé mais masturbation à répétition yooyu mooy indi problème mu boobu ci perte de testostérone bi ak dopamine boobu Mhm. Euh, tey euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne baaxee nañ ko te xamee nañ la ko itam mooy euh, lépp loo xamante ne dañ koy waxtaanee rek day am démonstration boo xamante ne moom lay àndal jëm ci li nga xamante ne ponk bi ñuy waxtaanee tey ñuy waxtaanee mbirum awra rawatina awra bi nga xamante ne moom mooy ku góor ki pour gën a mën a expliciter nit ñi gën a mën a comprendre fa ñuy waxee joxoñ ko baaraamu tuuma bañ koo raay raayal dañ lay bàyyi nga dem ci tableau bi wan ñu. partie bi moom la ñuy waxtaanee waaw ñun nag ñu di <laughs> non dama ne ñi nga xamante ne dañ koy raay raayal tey ñun ñu euh, jox leen ko niñ ko tàmmee rek. kon boog description à la lettre. waaw joxoñ ko baaraamu tuuma. Euh. ñuy tey ñuy waxtaane mbirum euh, tële maanaam góor goo xamante ne awraam dëgërul boobu lañ ko mën a waxee. <laughs> awra moom arab la. xam nga wax nga arab awra fi toni toll nii dérangé dedet euh bo boo nee lu mu koy wax pénis. boo nee pénis dérangé wul kenn. Uh-huh. non awra sax ci arab moy tekki sexe. euh mais day dégg fi ci góor ñuy wax zakar zakara waaw. zakara sax boy xol arab sax. arab la waye zakara góor lay tekki ci arab uh-huh. manam awra. góor ci arab kamara la tout mais góor mooy zakar rek góor nee mooy góor unza mooy jigéen li nga xam ne nag wax nañ ko ci arab wax ko ci français muy pénis ñii seen ba léegi dérangé wul kenn ñoom ñëpp jàpp nañ ni pénis garaawul euh, awara garaawul ñun nag fii ci wàllu impuissance bi mhm. sexuelle bi li nous d'abord ñu wax tam avant impuissance sexuelle daa puissance sexuelle nek fa manam mhm. ban mécanisme moy dox ba ku gor ki sakaram mëna a deuguer mu nous a ci lool lañuy wan nit ñi pour gor gi réaction bi maam ba sakaram jóg bu mu a yi xew ci yaramam ba loolu mhm. sexuelle sax la la la la la sàkkare bi ci boppam muy awra bi mhm. ci la bokk euh, pénis nag ci olof moom lañuy wax ndéeñ ñu bari dañ koy wax yeneen tur day de koo xam ne li a da koy tuddee lu mel ni kooy tuddul kooy <laughs> kooy jinax moo ko am ak ginaar ak yu mel ni pitax yooyu ñoom lu ñuy wax kooy loolu rab koy am bu dee ay nag ak i giléem ak i bëy ñoom sull lañ am da ngay dégg ñu naan nit ki di wax sull nit du am sull nit ndéeñ la am nag ak ginaar moo am sull kooy jinax moo koy am ak bëy ak euh, jinax ak lu mel ni pitax ak lu mel ni kañaak yooyu ñoom ñoo koy am fii nag ci wàllu pénis bi muy ndéeñ bi nga xam ne moom la góor am ñu koy wax lenn ndéeñ moom la ñuy njëkk a wane xam naa ñu ngi naan waa ji dafa ñàkk teggin ndeysaan man olof laay làkk de tey mënuñoo làkk tukulëram xaalpulaar. dégguma tukulër su ma déggoon tukulër dem dama ko wax ñu ci tukulër mais olof laa dégg su ma xamoon ñu ko wax ci tukulër dama ko wax ci tukulër de lii déjà damaa wane sàkkër a góor ci tàmbali. Mhm. bi ñuy wax appareil bi muy ndéeñ li ensemble bi li ci njëkk gis fii mooy lii la tubaab di wax pénis lii la tubaab di wax pénis bi moo nekk nii olof di ko wax ndéeñ pour góor mën a sëy kon sàkkare bi faaw mu ne mhm. muy pénis bi moom nag dafa am nu mu bindoo déjà am na benn tiwo bu ci am bi tax saw mi ak mànn bi di mën di génn ñu ko wax urètre mhm. urètre ab tuyau la olof di ko wax solom mhm. solom gi moo nekk nii damay wane fu saw mi tuyau bi di jaar mu ñëw ba ci kaw saw mi nag mi ngi jóge ci paftan bi paftan mooy vessie mhm. bokkut ak pafton pafton mooy garab gi paftan mooy cër bi nekk ci doomu aadama nga xam ne mooy dajale saw mi mhm. kii nag du urètre bi nga xam ne fa la saw mi jaar waaye fa la mànniwu bi di jaar mànniwu arab la olof wasal lay wax fi la mànniwu jaar ñoom ñoo ko bokk mom ndeñ bi di penisbi, bi du sakar ku gor ki dafa am benn éponge bo xamni ni moo saumi bi sawmi ak manu bi di jaar dañ ko wara protéger pour lan nit ki en cas bu sakar bi joggé deret gi solo ci duñu ñu bi ba sawmi wala manu yu bañ a la mhm. ñu yalla suñu borom mur ko ak éponge bobu ñi wax corps esponge corps esponge loolu lañ ko muré olof diko wax nepp nepp gi mo mur ni mhm. li nga xamni moy corps esponge bi moy corps esponge bi moy li mo mur li nga xamni moy mo ñew ni ba ci bop sakare bi ñu koy wax kang bi mhm. moo ko ba ni lii lu ma def bleu olof di ko wax baxa moom mooy corps sponsor bi di nepp bi waaye dafa am yeneen ñaari yu mel ni éponge tam gën koo dëgër tuuti nga xam ne moom bu sàkkar góor di jóg mooy ki nga xam ne mooy manque deret bi pour mën a solo pour sàkkar bi mën a jóg ñu koy wax corps caverne ñaar la ci sàkkar góor gi am moo nekk ci kaw corps caverne moom la di wax ngëndal mhm. moom moo nekk nii Mon nek couleur bu verte bi verte ci olof mom lañ wax ñu xamuñu ni verte moy Li nek couleuru bi bi du couleur verte bi mon mo corps bi nga xamni mom mo wara bu gi sakaram bu joge waye mom dafa téye boppam nooju moo tax góor sàkkaraam bu fekkee sëyul dafay lappax maanaam dafay flax mm-hmm. mel ni morso mm-hmm. lii nag moom moo rasu ku ne xam ne nag sànq wax naa la ko ne ne góor bu demee bay sëy am lu ñuy wax rapport sexuel muy baane doom moo tax solo gi yëpp doom rekk moo tax nit di sëy pour ñu mën a remplaçante jurante kon faw mu am li tax li defar jiw bi muy spermatozoïde yi benn mooy donj yi mhm. donj yi góor ñaar la ci am tubaab di ko wax testikul olof xuur la koy wax moom moo nekk nii am na benn yoon épidémie moo nekk am na yoon boo xam ni muy li wax canal séminal muy ab ngàll boo xam moom mooy doxal mànnuyu bi yóbbu ko mu dem fii ci prostate bi dogu a dugg ci bi ñu bokk ko bu waré sey ndox mi wara génn ci prostate bi ak liquide yoy ñoy dajale ak wala ñaan bi fi mbuss mi saw mi ñu tejj ko ba saw mi du mëna jall moo tax nga gis goor buy sey du mëna saw pour man bi rek mëna jaar dem li nak ko mur tubab diko ko wax bourse olof dambal la koy wax bourse moy dambal ci olof moy li nga xamni mo yor ñaari donji muy ñaari fii nag moom suufu nit ki la mooy fi muy demee cabinet lii nag pour mu mën a jóg ku góor ki mën a sëy faw am ku ko jox ndigal ki ko jox ndigal mu mën ko def mooy kan mooy xel mi bopp bi moo tax kon sëy faw xel mi ñëw pour mu mën a doxal lii xel mi di cerveau bi nag mus nañ waxtaan fii soxna Awa mhm. ci wàllu lu jëm ci wàllu cerveau yi yi ci nekk yi wax nañ ko ci neurones yeeg yooyu yëpp waxtaan nañ kon jarul ñu sori mhm. kon muy

lu ko yëngal pour mu jóg day mel ni rek làmp bi ne sa kër contact banque fa làmp banque fa fii daanaka waaye pour mu tàkk faaw nga bës kontak bi mu tàkk. Mhm. contact bi koy taal nag mooy xel mi waaye xel mi nag faaw nu bës ko pour mu tàkk ku koy bës mooy lan contact gu sàkkara bi bari na bët mën na ko def moo tax ku góor ki mën naa xool soxna si. moo xam jekkaayam la moo xam rafetaayam la moo xam doxinam la waaye daal am na leen loo xam ci bët bi gis na ko soxna si mu neex ko mu yëngal ko jox envie hypothalamus bi mu joxe ndigal pour sàkkara bi jóg moo tax kon bët yi mën na ci bokk bokk na ci li nga xam ni mooy tax nit ki mën a am wàllu érection boobu waaye tamit bakkan bi mën na ci bokk c'est pas pour rien soxna yi di faral di taal cuuraay mhm. cuuraay boobu dafa am lu muy indi sa xel bu nekkee sa xel nga xam ko am na lu mu lay jox muy indi envie bi nit ki mën a sëy kon bakkan bi bokk na ci li nga xam ni mën na ko indi waaye tamit nopp bi dégg-dégg bi la ngay dégg moo xam wax la moo xam lan la di gis fii ci senegal jigéen ñi yor lu mel ni ay fer keseng-keseng googu soxna yi takkuñu ko rek pour keseng-keseng yi am na lu muy def seen xelu borom kër yi ba tax ñoom ñu mën a am envie boobu lay déclenché kon nopp bi ci la bokk ah ku wax waxu sëy wax waxu fer de xam naa ñu naan sëriñ bi moom dafa doy waar waaye nag dañuy jàngale rek doyu ñu waar de waaye ni tuddee rek lañ koy wax te nag wax dëgg yàlla lu lu lu doomu aadama di dundee la. Uh-huh. tey nag Lamine Socé laa desine uh-huh. ndax moom sëy rek la fi nekk. Lamine Socé mii nag bu fekkente ni xemmemteef bi ñëw na ba jugu ci épitalas bi kon faaw ñu jox ndigal xel mi joxe ndigal. pour uh-huh. corps caverne bii. ni mu rasoo woon mu bàyyeendi ko firiñtu ko pour mën a jël deret bi. loolu nag. ci bulbe bi fii da koy jox li nga xam ne moom la ñuy wax moelle épinière bi. Mhm. moelle épinière mooy li nekk ci diggante colonne vertébrale bi loolu ñuy wax olof ndënjantaan colonne vertébrale bi nekk séq bi wala tuuru gannaaw fa lay jaar jox ko nga gis ni. nga gis ni.

pour mu mën a dox bu ko defee moom s bi fii ak S bi moom ñooy ñëw maas ko courant mu firinci ko daal di lasu bu ko defee ne ñu jox ndigal li nga xamante ni mooy xëtër bi ak xol bi gannaaw bu xëtër bi raxasee deret bu baax bu am oxygène bi jox ko li nga xam ne mooy xol bi mm-hmm. bon tay mom dessin bi dafa sant Lamine Soose nag daa naqare dessiné bon ci hmm ni lay doxé bu ko rafé nak xol bi xëteur bi comme ça am nek ni dama koy def en frag rek xol bi tok ci jafrang bi li moy sem bi xol bi mom xëteur bi da koy jox bi jaarale ci liñ wax droite bi mu dugg ci gannaaw mu ci fenn pulmonaire bi dugg ci fii ci oreillette droite gauche bu ci xol bi jaar ci ventricule gauche bi muy biirub xolub ndeyjoor càmmoñ bi jaar la ko ci artère aortique bi mu yéegal jox fi deret waaye wàcc ñëw ci corps caverneux bi mhm. ak ko ñu ko deret ba mu fees bu ko defee ñoom ñu sol ko deret ba mu fees bu deret gi soloo ba fees nag bu ko defee nag nit ki mën a sàkkar bi mën a jóg sàkkar bi mën a jóg nit ki doog ñu ne am na érection saakar jóge mën naa sëy mhm. bu sëyee nag ba ndox mi manu bi yëpp génn processus boobu am ñu joxaat ndigal deret gi mu dëppaat parce que deret bu dee ba solu ci corps caverneux bi rek da koy nacc mhm. denc ko foofu veine yi tëju ba du am retour sanguin pour érection mën a continuer moo am na góor ñoo xam dañuy am dañu seen dañu day jóg ba ñu bëgg a sëy rek mu bàyyi mhm. defee boobu veine bi xam ne moo waroon tëj deret bi tëju ko mooy veine profonde yi bu ko defee bu demee ba sëy ba noppi nag deret gi daal di génnaat veine bi bàyyi mu jaaraat dem ci li nga xam ne mooy xol bi ci oreillette ci ci oreillette droite bi jaar ci ventricule duraat bi dem ci artère pulmonaire bi duggaat ci xol bi mu raxasaat ko mais bu paree nag saak dafay wàcc foofu du mën seeyaat ci saase parce que lu tax sensibilité bi nga xam ne moom la suux bi amoon ci neer yi bu neer bi ñu ñëwaatee di ko stimuler du nangu. Mm-hmm. day il faut mu xaaraat ab diir diir bi mu ngi méngoog nag nit ki âge xale bu góor bu ndaw bi. mën tok 5000 cinq minutes mënaat ko keneen ki mën tok 10000 mais lu âge bi gën dem distance bi di xaar di gën di di gën di yag kon ci teunk bu do wax processus bi rek ni mu jëmee ci walu góor ak walu sëyam dama ne li moy tax góor gi mën nek nekk mën di sey donc pour mam kon xol bi dafa wara bax baax mhm. dañu wara bax xel mi dafa wara normal neer yi dañu wara bax bu ko defé ci walu bët yoy nak nit sax mën na ay bëtam te bu soxlaa mën see parce que am na leneen lu ko mën yee mhm. der bi laal bi ngay laal yaram bi raay ko mu yëg ko wala yu mel nit dana tëx te mën a am mais na am rek loo xam ne mooy taal ba ci xel mi sax xel mi muy toog nga toog góor toog xelam nekk ci rek mu di ko xalaat rek mën na éveillé sens ba joxe ndigal mhm. stimulation boobu am mhm. kon ci tënk soxna Awa bu ñu wax daal mécanisme bi li tax góor mën a sëy mu normal mécanisme bi lii la d'accord tey nag ñu baal ma ci euh, dessin bi dama koo xaw a saboté tuuti euh, Lamine Socé daal mi ngi nii gannaaw ba nga xam ni sàkkaraam jógul nii la mel pour mu jóg nag yii yëpp mooy dox Lamine Socé sàkkaraam doog a mën a mën euh, ñu ñëw kon euh, ci point yi nga xamante wax nga li waral éjac kii di am érection di am. Euh, dafa bëri ay fonctionnalité yoo xamante ne il faut ñu ñu ñu baax daal lañ ko mën a waxee mhm. mais dañuy commencé ci li nga xamante ne moom moo di xel mi mhm. euh, tey jii gis nañu ne dañu nekk ci jamono joo xamante ne stress permanent dafa am mhm nit ñi seen xel euh, fi mu nekk nii li ciy jiixi jaaxa dafa bëri mhm. ak yi ni mel mhm. est-ce que loolu euh, su dalee nit ki ci saa mu dal ko mun nañu jàpp ne benn panne la pour un laps de temps la mhm. mais am na impuissance yoo xamante ne ay impuissance yu yàgg lay doon peut-être bu fekkee ne wàllu stress beeg yi ni mel ci wàllu commande bi mun na nekk benn panne sexuelle waaw te panne mooy lu ñuy réparer waaw xam nga panne non góor moom bu xasee ba nekk góor dem ba ci biir mu am jafe-jafe rek mën nañ ko réparer buñ mënta réparer mooy ki nga xamante ni daa musta nekk góor boo xam dafa am impuissance primaire. à la naissance à la naissance kooku moom ay wax ko mais ki nga xam ne mënoon na te mënatut kooku moo paan stress bi nga wax nag li ko mu def bari na mais stress da am luy tax muy dem ba téye ku góor ki ba du mën a sëy parce que nit ki bu fekkee dafa stressé li ñuy wax taux de sérotonine bi ne ci yaramam ci bopp bi nga xam ni.

bu stress bi dañee xam nga lu tax lu ci ëpp seen stress dañ ba pare ñu continuer am impuissance bi leen ko yóbbee mooy bi ñu amee impuissance bi ndax stress bi impuissance bi mu ñëwee ba pare muy télé bi li leen dal mooy nag léegi dañuy xalaataat nag impuissance bi leen daloon ba suñu bëggee nekkaat ak seen soxla xel mi day ñëwaat paan ba ñu amoon mu indi blocage loolu mooy tax muy gën di bloqué di gën di tëju moo tax stress dana ko indi après nag xalaat bi li lim la xasoon dal ba noppi la fekk nga continuer di ko xalaat muy génn indi blocage moo tax ku si ki stress tamit pour nga dindi ko totalement da ngay fexe moom ba mu nekkaat góor bu ko defee mu wóoluwaat boppam rek am confiance rek dafa le tour est joué mhm. mais stress bi wax nga dëgg mhm. bokk na ci li muy indi góor li jëm ci walu impuissance. Mhm. Euh, tay ji euh, sank ñu ngi koy jundju moy euh, ñen ñi nga xamante ne ñu ngi dundu comme jàngoro bu melni ni diabète en général dañuy dégg né ñi nga xamante dañu am diabète dañuy faral di new katan ci seen walu négu sey ndax lolu mën nañ ci remédier tay ji lolu mën nañ ko remédier xam naa dafa wax ne la diabète du fièvre trouble métabolique la direct bobu di 10 ak sucre seeg yini day dem bu yàggee day yàq neer yi moo tax jabet tig bu bari bu yàggee nit nag mën na am jabet am kattanam. Mhm. mais à la longue day dem ba dafay perte kattan boobu parce que day dem ba neer yi ma la wax nga xam ne ñoo doon stimuler pour réaction bi am pour corps corps caverneux bi muy ngëndal bi mën a bàyyi sol deret bi dootul am stimulation boobu moo tax ñoom duñu am sax érection wala faa ngi koo xam ni day am érection ba jàpp ni mi ngi bëgg a sëy rek mu ñàkkaat kattan boobu mu amoon jabet bi. mën na ko indi surtout ki nga xam dafa am diabète boo xam ne moom régime moom normalul taux de sucre bi ni maan ni mu war a seetloo boppam ci dundam baaxut ba nga xam ne mën na indi affecté nerf yi am lu ñuy wax neuropathie diabétique gi lu ci ëpp dañuy néew doole ci wàllu sëy ba ñuy am hypertension artérielle parce que hypertension artérielle deret ni muy dawee ci artères yi dafay gaaw ba nga xam ni mën a dem ba indi jafe-jafe artères yooyu bu ko góor googu tam mën na ko indi néew doole waaye itam lu ci ëpp garab yi ñuy faral di jël amna na ci ñoo xam mo moo leen koy jox dafa am garab yi nane naan pour seen yi lu ñuy wax ay beta bloquant beta bloquant yoy goor gu koy jël par force diga jëm ci tële diga jëm ci implantation sexuelle parce que beta moom buy bloquer lu xam li rek la wara bloquer mom lepp lay bloquer bu ko defé kooku tamit da koy néewal doole moo tax ku am hypertension bu dé SMS daf lay bindal ay garab pour hypertension parce que hypertension du wér mhm. traitement à vie la diabète du wér traitement à vie la mais bu lay jox garab nga wax bu mu la jox bu dee góor bu mu la jox bêta bloquant parce que bu la joxee bêta bloquant obligatoirement di nga dem ci impuissance mu xool beneen système bu mu la fajee boo xam dina mën a réguler sa tension te du la indil euh, euh, benn euh, benn jafe-jafe donc yooyu am na ci yenn feebar yoo xam bu dëgg la mhm. day joxe impuissance moom la jox impuissance secondaire maanaam lié a beneen anomalie boo xam ni. Mhm. mi ngi ci am na yeneen yu joxe impuissance yu bari. Mhm. Euh, bokk na ci tey euh, sànq junj nga ko itam mooy aphrodisiaque yi. Mhm. te gis naa ne jamono ji on en abuse. ci façon bu nekk rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy jóge Moyen-Orient. ak yi ni mel fi mu nekk mi ngi inondé marché bi ñu ngi koy jëfandikoo tey nit ñi dañ koy jëfandikoo pour yokk seenu kàttanu sëy. waaye su demee ba jur saafaan ba itam. parce que yokk kattan moo dul yoon kàttan warul nekk lu ñuy yokk.

boo ko lebee mu jox la dana la fayeekuwaat intérêt di nga dem ba mujj gi da nga naan aphrodisiaque bi du la amu ñam te aphrodisiaque yi gaa jël fi yëpp lan la ay sidnéphile rek la sidnéphile sax du du lu naturel lu chimique la ay molécule la synthèse la yoo xam ne lu ñu wax inhibiteur lañ day tax muscles yi ne woon ci sàkkara bi ak koron muscles lay bàyyi ñu las bu ko defee deret bi dara neewu fa mais loolu bu yàggee day dem ba mujj gi corps caverneux boobu da koy yàq day dem ba yàq muscles yooyu nga xam ne dootuñu am tamit doole googu

Sénégal wala nit ñi dañ jël affaire sey rapport sexuel baane jël ko def ko comme lo xamni question de doole la question de prestige la te loolu lepp du ci am amu ci rapport sexuel pour am doom kese la xeyna nak li tax nu nek pour am doom kese xeyna nak nag ci bànneex bi ak yoy ci la bok c'est normal parce que dina tax sa nit ki sawara ko def mi ngi mel ni rek lekk ku ne xam na ni lekk pour dund kese la on mange pour survivre waye nak bu ñuy lekk ñi ngi fexe ba di lekk lekk gu neex. Mhm. naan kii nag dafal ma maafe kii nag dafa ma naan neex neex boobu ñu am ci lekk bi donte lekk dund rek moo tax ñuy lekk waaye plaisir boobu ñu am ci lekk bi aar boobu ñu ciy def moom it dafa valable ci sëy bi muy ci ku góor gi muy ci ku ku jigéen gi. Mhm. moo kon ki am éjaculation précoce na ci jóg parce que boobaa moom xëy na bu amee bànneex bu gaawit ku jigéen ki mu nekkal amul bànneex te mu ngi koy lor bu yàgg itam day dem ba indil kooku ay problème mhm. donc euh, ki am éjaculation précoce ki am faiblesse ki am impuissance ñoom ñëpp ci góor dañoo tële mais ku ne dafa war a fexe xam lan moo indi tëleem boobu mu réglé ko en conséquence. mais tële mënuñu ko méngale ak euh, li nga xamante ne moom moo di fécondité góor mën ngaa tële mais fécond. waaw góor mën na tële ba pare fécond parce que fécondité bi. ci spermatozoïde la bu fekkee yow testicule yi cellules de Leydig yi nekk ci biir muy donj yi muy xuuri yi ngi defar spermatozoïde rek baax na léegi nag ki nga xam dafa tële nga xam ne sàkkaram jógut dëgërul kooku mënta après bu bàyyee ba pare maanaam bu amee rapport ni muy éjecté parce que gis nga éjaculation góor gi bu ndoxam di génn ci ñaari phase lay génn phase boo xam dafa mel ni kuy armé nga xam day dajale walax njaañ leeg liquide séminal yooyu ak phase xam ni dafay tiire expulsion boobu muy def sperme mu sànnee ko pour dem ci ku jigéen ki ci trompe yi dem ci over ci nen bi sànni boobu ki nga xam ne dafa néew doole du ko man mais kooku boo demee jël ci donj yi fekk fa spermatozoïde jël ko def ko ci ku jigéen ki day mën jël ëmb moo tax nga gis ñuy def ay FIV ak yu mel noonu fécondation in vitro yu mel noonu da ngay dem jël cellule bi ci souche ba ci cellule de l'utérus ci tube séminifère yi nga jëlee ko fa mais ki am éjaculation précoce tamit mën naa am éjaculation di am doom parce que man yu bi muy wasal bi baax na am na spermatozoïde mais nag nit tam am kàttan nekk góor di sëy mhm. chaque jour am doole li ñuy wax góor gu am doole di sëy moom nekk ku alde mu alde lool waaye du mën am doom ndax du tax ndox mu muy génne amul jiwu dafa amul jiwu boo amul jiwu doo saxle parfois da nga gis nag góor yi lu bëri day nekk seen soxna rek ñu ngi nekk góor di joteeg moom def nañ deux ans amuñu doom waaye ku jigéen ki rek la ñu yóbbu yabal mu faju yi góor gi doo ko gis fekk nag jàpp ne ni moom comme que aldana rek am na doole rek kon moom baax na déedéet mën nga am doole ci sëy ci acte bi ci mbay mi waaye jiw amoo ko faaw nga wuti jiw kon góor ñi tam nañ habitude di ànd ak seen soxna yi di leen jàppale ci paj mi doom nee la du xoole wala wérdi wala waxtaan moo koy maye rapport sexuel la boo xam ne ndox mi da ci am solo mhm. comme que ñaara ko séq nag ñaar ñëpp ñoo dem di xooli seen bopp taar bu ci am ñu mën ko corriger parce que tey problème bi li ci ëpp itam euh, mooy ci fànn bi ngay waxee mooy euh, kuy wàllum ngóora dafa doon loo xamante ne góor gu ko amul rek day wàññi si sëb ngóora lu bëri ndax suñu nee ngóor ab góor loolu moo tax sax ñu naan nit ki ab mhm. góor la mhm. euh, tey li ni mel su amee day wàññi lu bëri ci moom ba nga mhm. xamante ne même bu érection naraatul ñëw yaa ngi wax ci wàllu bëri xel la pour mu ñëw day doon benn blocage ndax am na ay euh, préparation wala am na loo xamante ne mun na leen permettre ñu booster ko te du leen gaañ te dina leen delloo si waat li nga xamante ne moom moo di seen confiance en soi waaw am na yoo dina tax nit ki di continuer di nekk góor mais loolu nag comme ni ma la waxee rek lépp lu am prévention li prévention bi li ñuy wax prophylaxie bi waxoon naa la prendre précaution de maanaam fexe nekk nga góor sa ngi jóg ngi dëgër yaa ngi mel say normalement fexeel nag ba loolu lépp luy tax loolu di gën di nekk nga ne ci waaye lu koy yàq nga moytu ko. Mhm. góor goo xam ne chaque jour nga sëy da ngay gis góor goo xam ne day sëy ñaari ñetti yoon ci guddi gi ku koy def ku ne ci tële nga jëm góor waratu sëy lopp ñaar ba ñetti yoon ci semaine bi benn guddi nga sëy si ñaar wala ñetti yoon loolu xaru la ci tële ku góor ku koy def rek yàgg-yàgg rek tële ñaar ba ñetti yoon ci semaine bi doy na boo sëyee benn yoon ci guddi gi doy na noppalul may fan ñaar ñetti fan mbir mu du lekk du lu ñuy naan lu lu nekk la lu war a def rek mais nag lu ëpp tout texte est nuisible tout texte est est nuisible kon nga def précaution waaye tam ci sa walu lek kon ko yaangi ngi génn mo xamni xam ne nga génn tax nga ni mànn yu boobu muy sperme bi mais muy wasal mi liñ koy defare ci deret lay jógee day jël lu ëpp solo ci mi muy essence bi moom la ñuy bi kon nit gor googu war nay lek lek gu bax war nay noppalu war nay dalal xelam war a nekk ci tranquillité li am li wax ataraxie manam absence de trouble ci yu bari bu ko fay mu nekk gor bu demee nag ba nga xam ni nag moom am na jafe-jafe mu seet koo xam ni xam-xamam màcc na ci loolu mu waxtaan ak moom xool ndegam xëtër yi la wala deret bi la wala artère yi la wala deret lu mu mën doon lan la maanaam koo xam daf ñuy wax pathologie boobu ñu la wax mu xam ko xam ni kat pathologie bi kat lii affection bi kat lii moo ko indi mu ut ci pexe muy thérapie boobu muy thérapie faj ko en fonction nag moom ni mu amee jafe-jafe mais nekku rek lo xamni da nan de prime abord rek wala a premier vue rek nangam biral koko jox mo am kàttan dedet du nono moo damay faral wax ni man ñi may tere dama len joxuma la aphrodisiaque pour nga am doole mën sey après ça dedet dañ lay traiter donc may ma temps ñu defar mécanisme bi defar li nga xamni moy système bi ci walu tëral dafa am ben effet bu ci am góor ñi ñu da ngay deg tubaab naan la l'homme cheval l'homme coq l'homme canard parce que sàkkara góor yi yamuñu te amna yi am na nu muy mel moo gën a ki nga xam dafa am lu ñuy dafa nek lu wax l'homme cheval moy goor go xamni sakaram sàkkaram gudd na rëy ñu bari sax japp nañ ni sàkkara bu reuy bu guddu moy tax goor gi nek goor effectivement c'est faux parce que jigen li tax muy yëg banex ci sakaram ñu koy wax clitoris ba deful 4 mm nga jot ko kon fofu ak 4 mm jigen ñi mëna am satisfaction totale

non booba érection mooy da ngaan kon naa fexe ba sa érection gën a tendre maanaam boobu da ngay mhm. yokk nag circulation bi ci corps caverneux bi waaw mais boo ko yàggee yokk corps caverneux di gën a yokk élasticité am di nga ne ba dafay las day mel ni élastique bu bàyyi mhm. donc moo tax ni mu mel di doxee noonu bàyyi ko ni mu mel yàlla mi ko def moo tax yow noonu la ko defee yamal ci noonu waaye nga ne déedéet dañ fexe mu rëy ci njëriñ muy li ñuy wax l'homme cheval moo tax ñu nekk l'homme cheval olaf di ko wax ñi nga xam dañu am parce que l'homme cheval moy sakara bu guddu tëdd ji mom la olaf di wax gandal ñoñu dañuy gawa télé mëna mën am doole waye bu ñuy nekk mak obligatoirement de cóob dañuy télé parce que lutax tax afflux bi bi bi bu soxla baba ci ni mu réyee noonu muscle yi yi sen sensibilité yoy day dem bu mu jigi léegi muscle fay las bu demee ba toll ci yeen âge yi dootul mën jëjal moo tax ko dañu gis ni dañu la xalam dañu si jigen sakara bi fuddu solo, waye du mën parce que xamul tax urette du ko mu mun yëkkati mm-hmm. parce que sàkkare bi ni mu bindoo la kooku mooy gën a gaaw a ñàkk dooleem mm-hmm. mais am na góor ñoo xam ne ñuy wax lom kanaar kooku tamit duy gaaw a tële waaye moom jigéen bu sëy ak moom pour am ci bànneex dana jafe ci moom l'homme canard mooy xam góor boo xam ni sàkkaraam dafa sew gudd loolu la olof di wax mbaracaan kooku ñu ci ëpp moo da ngay gis jigéen daan toog naan mbaracaan day daw biir dañuy wax ni foofu daal doo ci am bànneex

sen ñu du parce que sanguin du len sonal du parce que ni la. Mhm. mais amna keneen nak ko xamni ni sakaram dafa gatt ba pare waye dijina kok tam du a mom lañ wax ci olof puqet det ñi di wax lom kok ci bi ñi am puqet tam ñomit it sey ñomit mën nañ si duñu am ben neew doole bu len di donc avantage sax nit ki sàkkara boo xam dafa yam mais si boo xam daan la dafa bëgg sàkkara yokk nit day ñëw ci ñun ci ñeneen dañ bëgg mu yokk ñu la loolu mun a yokk mën nañu fexe ba jox la garab yoo xam boo ko naanee érection bi bu sàkkara bi jógee dana dem nu rëy tey dañu jigóor sax bu amee érection boo xam def na entre onze millimètres onze centimètres ba treize centimètres ñu ne la sa foofu mooy li normal loo xam ni au la de treize am nañu ko am mais c'est pas recommandé en deçà de neuf am na ñu ko am c'est ci lan côté esthétique bi ndax nga nekk sa soxna mu gis saakar mu mel ni euh, cucu lu mel ni lu ñuy wax euh, kiiwub liir da lay gêner mm. mais ci côté performance sexuelle sëy ku jigéen ki mu am ci bànneex kooku tamit mën na ko def parce que am na millimètres te yow soxla woon lu dul 4 millimètres am nga plus 5 millimètres mais peut jeune bi mu lay def mooy nga di ko nëbb sa bopp ndax lan ni sàkkare bi toll ni awre bi toll gêne boobu mën na la stressé ba mujj yow léegi nga war a am performance mu bloqué la

duñ sax am rapport sexuel te nekk ci moment yu d'intimité ku ne am ci banex te fekk sax amuñu rapport sexuel man sax malade yoo xam dama leen bu ñu amee problème euh, ci érection yi damaa la fii ak un mois sa soxna bo nekkee ak mom séqal ak mom lula neex bam dess pénétration manam coït bu mu am manam bul bul ag ci mom -hmm. def leen lu neex nak même bu la seexee sa ndox na génn ci biti mais acte rapport sexuel mi bàyyi bu leen ko def lutax

mais ki nga xam ni dafa nekk soxnaam nga xam ne ñi ngi jote fréquemment deux à trois fois par semaine wala am na ñoo xam sax moom chaque jour ñoom ñi ngi ci waaw kooku érection maintenant dana la jafe wala nga dégg sax ñu ne la dama am rab ndax damay gént di sëy waaw góor goo xam dafa toll ni war a toll nekk li ñuy wax waxambaane waxambaane mooy bajaak xoola âge bi waxambaane mooy baane mooy rapport sexuel hmm. ñoo ne kii waxambaane la maanaam waxam yëpp ci baane la jëm waaw muy tëdd di gént di sëy nga ne ko da nga am rab amul rab utal ko fu muy baanee rek bu ci dëkkee gis fu muy baanee dootul génn di ndax avant mi tëdd defoon na ko du ko gént ñu nax la ne da am rab te yow sa yaram mi ngi doxal yaa ngi lekk yaa ngi naan hormones yi ñi ngi sécrète normal cellule de léegi te yi ñi ngi defar spermatozoïde bu ko defaree ba benn moment te yow génne woo ko parce que nga waroon dem jiwi jiwi woo tamit defar na yeneen yu mu war a indi bu njëkk bi du ko génne Mhm. da lay def nga nek ci nelaw nga gënt parfois nga gënt ko xam ba nga gént ab magat parfois nga gént am xar lu ngay gënt pour lan mu ndax la man ñu bu génn beneen man ñu bëss ñu ram la kooku nit ki sa bu ko defee bu xé day soulager wu day fex way ñu ne la da nga am rab koku doo ko xam lan may rabal takal ko jabar fi fa dëkk yi nim doxé lék mo gra bu ñu da ngay am 18 ans sa bàyyi takal la jabar yoral lako lélé mhm. léeg su ko am 30 ans am na la mënugu ko am na la mënugu ko xeyugut gontugut wa mënu ko xey gondo waye yaram mom mën nako mi ngi xey mi ngi gondo legui len rek lay def wër di taxawalu wala muy xey di masturbé wu naan damaa am rab damay masturbé wu euh, amoo rab pour masturbé wu yow la neex nga am ci ban di diko def heure boko bëgge bay di nga ko bay du rab kon nañ bayi naxante bi ku am 18 ans na la sa bay takal jabar nañ bay materialisme bi nan amagut am am yorul jabar nit bu amé kon yor jabar bu ya ba ñak xanaa day fassa jabar ji bayyi ñoo jël seen doom yi dimbali leen takal leen jabar téye ko ci kër gi di tété bu demee ba mënal bopam mu bëru yóbbu jabaram su demee ba nga xamni nak mom bëgg na ñaareel te mu ko ba ko mu na tak euh mais tay euh, ban âge nga japp né góor gi su démé bay sentir yenn faiblesse bi bu mu am tiitaange c'est par rapport à l'âge ak par rapport ak vécu peut-être. waaw am na ci yéen yoo xam da nga xam ni sa doole say morom fi la seen doole yam li say morom mën boo ko mënee rek am nga doole li say morom moroom mënut mën te mënoo ko nga xam ne ñàkk doole am mais nit ki à part de sax léegi da ngay day gën a faible gisoo xale bu góor bu amee érection sàkkaraam day jóg ba dal ci naq bi parce que fa daf ci toll waxambaane la mais bu demee ba yenn aaji yi maanaam angle day nekk angle bu ferme mais bu demee yenn âge yi angle droit la érection bi di def bu yàggee nag mais lampe buy xëy di tàkk nag bu yàggee nag. saa waay ah dana buree nag nga topp ci kurus gi nag. mais du du kii mais nag góor nag mën na dund ba dee di am kattan mais nag ci ci vague bi sans góor yi mais bu ñu am yenn àddina daa ñoo xam ne faaw ñu toog nag. Mhm. moom ngay dégg ci kër yi ci butu yeeg ñàkk warmaal yëpp jooyee ne ci kër yi góor moom nag bu fekkee dem nga moom ba yëpp sëgg. Mhm. waaw kër gi moom doo fi am baat loolu moom noonu la àdduna demee. waaw Ndeye Ndiaye mii ma gis mu tëdd ci suuf lan moo ko waral tey. waaw Ndeye Ndiaye mii ma gis nga gis nii maanaam dafa am rek loo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ci ci ci ci ci ci ci ci ñun sénégalais yi ñu gëm suñu bopp encore une fois. Mm-hmm. ñu xam ne tubaab bi du def dara pour ñun kon buñ ko xaar complexe bi ñu am vis à tubaab bi nañ ko dindi te gëm suñu bopp xam ne ñun li ñuy defaral. Mm-hmm. ak li ñuy dundal ci ñun lay jóge te bàyyi complexe boobu xam nga kii doomu tubaab la. Mm-hmm. est-ce que gis nga ñu mës defar doom boo xam ne day ñuul ñu ne doomu nit ku ñuul la. say doom ak samay doom ñep ci li la ñuy hmm bu ko defé xalé bi lu mu njëkk am complexe tubaab bi ndax ci li la ñu kon kii lay def nawlé karaw gu guddigi gi moo tax loo gis ku ci mag uuti nga cheveux naturel te li ñu am du cheveux naturel ndax cheveux naturel sa bop lay sax di ñëw cheveux mhm. naturel naturel na ci tubaab ba mu ba mu nekkoon ci bopam mhm. waye bu ñëwee sa bopp cheveux artificiel la ci yow mhm. complexe bobu ñu am nañ ko bàyyi kon ñun jëmuñ sax fexé dafa sun bop doomu tubaab dafa ñu doomu nit ku ñuul suñu doom di jëf nañ ñu nañ ñu defaree benn bu ñu suñu doom di jëf tubaab bi deful benn yoon bu ñuul xamul tax parce que faale wuñu gëm loolu ni tekku leen dara ñun ñoo leen gën kon sunu doom yi seen doom yi la ñuy fooye li piir nag te ñu xam ne muy ci wàllu faj bii tax may wax tubaab bi amul benn garab bu muy defar pour nit ku ñuul bépp garab bu mu def feebar bu koy dal la mu kal ko ci boppam mu koy faj mu génne ko di ko jaay ñun buñ ci amee ñu mbuusu for ci wax naa la benn ne la bande kolante bi gën a ñàkk fayda tubaab bi defaru ko pour ñun dama lay wan nga xool ko kii bande collante la gis nga couleur bi ni mu mel. Mhm. gis nga doomu tubaab bi ni mu mel. Mhm. kii man su ma gaañoon taf ko sama jëb foo mu ne ma masta. loola mhm. daal lu tax ñu defal bande collante bu ñuul bu mel ni suñu der bi ba suñu gaañoo kii moom daa gaañu tànk bi doomu tubaab bi. est-ce que fii gis nga fenn foo xam ne di nga xam ne kii daa gaañu. xamul tax uniforme parce que dafa jël band bi méngale koog deru yaramam. waaw comme que ñun ku mun ku la mun defal bande commande pour yow du la defal leneen pour yow kon nañ xam ne ñun suñu bopp ñooy defal suñu bopp li ñu war am kon suñu réew yi nañ ko taxawaat moo su ma gisee yenn saa benn président français toog ca France fukki président africain dajaloo ku nekk sa avion say kérosène say <laughs> hôtel gàddu dem wuy jóge fu mu wax ak ñoom benn une heure ñu gàddaat mel ni ay taalibeem mm-hmm. demaat ñibbisi mos naa gis benn président Europe yëpp ñëw Afrique ci benn dëkk africain rek ñoom ñëpp dajafa pour seet si africain boobu mos koo gis ñun kenn day suñu président yëpp gis nañu euro bi appuyé doole CFA yi benn euro 650 noonu la ñu jëlee 650 président ñooy fekk benn euro français boobu muy Macron toog ñoom ñëpp doon mel ne ay dañu war a gëm suñu bopp xam ne ñoom duñ ñu defal dara ñun ñoo war a defaral suñu bopp suñu gëm-gëm mhm. kon nañ delluwaat suñu bopp xam ne tubaab yi ëpp ñu xel gënuñ ñu seen maam yi ci gannaaw rek daawuñu sol nañ bàyyi xel loolu. Uh-huh. te dëkk bi li fi ne sunu baykat yi sunu sàmmkat yi sunu ñu protéger leen dimbali leen ba ñoom ñu am amoon lu ma jafe-jafe ak kenn muy tubaab waaye nag wokkal bi wokkulu bu ñuy wokkulu lañ war a bàyyi. moo doy wokkal ma fii wokkal ma fee. Uh-huh. wokkal fee déedéet fële laa wax foo ko déggee rek kuy wokkulu moo koy wax. ñun ñi xam fu ñuy xasane nañ ko wokkal suñu bopp ne fa duur suñu baaram wokkal ko suñu bopp te bàyyi wokkul bi jeex na euh, sëñ Medoune euh, Cheikh Ahmed mi def euh, signe ne heure bi jeex na tàkk ma bàyyi la nga tàggoog askan wi waaw santaat yàlla rek du ñëwaat ñëpp rek di santaat ñëpp rek di xam ni réew mi daal ñoo ko moom mhm. nañ bokk jàppante ñëpp di commencé ci président de bi ba ci suuf ku ci ne ku ne jàppante ñu defarante xam ne dëkk bi ñoo ko bokk bokkandoo di ko defandoo ku ne la nga ca mënti lu baax nga def ko. Mhm. bu ko defee Sénégal jëm kanam réew mi jëm kanam Afrique. jëm kanam ñun africain dañu dajale booloo nekk benn ñun borom dëri ñuul yi ñu doole si waat fonkaat suñu bopp xam ni dara kenn gënuñu. d'accord ku am lu mel ni Serigne Touba dara warutul rëy sa bët. kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp bu dee nag li ñu wax am na ku fi déranger ah ñu xam ni nag. Mm. suñu ngëm-ngëm ak suñu gis-gis rek lañu waxee waaye visé wuñu kenn amuñu kenn ku ñuy waxal hmm. suñu intime conviction rek lañu waxee te suñu borom rek hmm. yàlla rek tax